borom daaru na ko maa ngi nii nag kan laa maay ku tumuranke nag bàyyi ci réew mu sori kon nag fala taxfalan andal garibi li jahlihi bul bul bul saggane kii nag ci jóge gi fu sori ak ak ak ak réer gi mu réer bu ko sàggane na nekk ab baay ci man boo xam ne da may yërëm ci lépp lu mën a mën kon donga bi bi mu ñëw lii la indaale ci ay bay waaye fi ngay xamee loolu mooy sëñ Moor Biraama Jaxate bi mu jàngatee bayit yi borom daarul wax ci def lan la ca teg dana ko wallahi law kuntu saadat min xudulukum wa illa mamatiya ma niltu bi maxsuumi dana ko giñ naa ci yàlla ne bu ma juumoon ba sama loxo bii laal sa leex bii li may sàkku adduna alaxira duutuma ko am kon duutuma ko am mukk kon xam na euh, sëñ Birahima mi kan mooy Cheikh Ibrahim borom daarul maxti euh, loolu nag ba mu amee kon borom daaru Sëriñ Tuubaa ko yar Serigne Touba ko jàngal xam ngeen ne yabaloon na koy ci adib bu siiw boobee ñuy wax di ma Jaxate Kala moom it mi nga xam ne ku géeju la woon ku fànn la woon ci xeeti xam-xam yëpp ci wàllu naxwu ak alut euh, waaye borom Daaru Muxti nag ba yooyu yëpp amee sëriñ Touba féetewoo ko ñu ñëw Pataar ba bi ñu jógee Pataar ñëw Mbakke Kajoor dëkk boobee nga xam ne fa la Serigne Mor Anta Sali bàyyi ko dem déqale maanaam fa la wàcce ab liggéey waaye borom daaru féetewoo gi ko sëñ Tuubaa féetewoo da ca feeñal keroog bi sëñ moo Anta Sali génne àdduna ban denc ko ba noppi ba di ko yoonal mooy li ñuy tuddee miraas dafa am lu ci sëñ Tuubaa wax ci position bi mu féete ak borom daaru mat moo tax Sëriñ Moussa Ka wax ne déglul ma wax la yow keroog miraas ma waa Mbakke ak waa Kokki teew turaas ma keroog miraas ma Bàmba naan leen cerno mooy sama wàll bu amee mu doy nga xam ne sëñ Mor Sali bi mu génnee àdduna ñu war koo miraas Sëriñ Touba moo wax ne yéen kët na ngeen xam ne cerno mii mooy sama wàll maanaam sëñ Touba maam cerno la donn ci alal yi sëñ Mor Sali loolu dë lu yéeme te sëñ Touba yi mu ci dane ginnaaw man donn naa cerno nag cerno du donn léegi man donn naa ko moom it man na ma cerno doon nga xam ne man doy na ma mooy doy naa ko man yàlla doy na ma te doyloo naa ko maam Cerno doy na ma may doy naa ko loolu kon mën nga caa jàngate maanaam man yàlla doy na ma tey te doyloo naa ko waaye maam na ma may doy naa ko kon sëñ Tuubaa dana ne man maam na doy na ma cëru miraas waaye may doy naa ko bu wenn xeetu mbakke bu wenn xeetu kokki mbaa boobu mbakke taxaw fii naa ma sàmbaaka dem ma mbakke waaye sëñ Tuubaa yëmu ci wax leen waaye ca boole na muy waa kokki wala waa mbakki kokki gam mbokk wala waa mbakki bu fi kenn ñëw naan ma sa dem ma mbakki bu fi kenn ñëw naan ma lu tax ceerno dondul wala naan man daal donn naa ceerno ceerno donn na ma doy naa ko may doy na ma waaye lu ci xewaat keroog la ceerno yeesalaat njébbal ga fedd li boole woon ga ci ca ndaw ga bis bi mu feeñee jamono sëñ moorante sëli da koo jébbal Sëriñ Tuubaa keroog bu sëñ moorante sëli génnee àdduna borom daaru daa jébbal bi sëñ Tuubaa woote waatee yoon wi daa jébbul waat ca moom nga xam ne kon ay jaayante yu baree bari ba yoon wi taxawagul la Cheikh Ibrahima tàmbali jaayante ak Serigne Touba keroog la jaay mbokk ga ak xam-xam ba jëndeeg murid saadix walis am-am ba nga xam ne xam-xamam da koo jaay jaay am-amam lan la ko jëndee nee na mooy murid saadix sëñ Touba it bi mu koy tërbiyee sëñ Moussa Ka nee na dëkk bi maam Thierno jëkke sàkkete mooy Mbàkke Kajoor Mbàkke Kajoor la jëkke laayoo sàkket di sàkketal Seex Bàmba bul ko enquête fukki at ak juróom la am ci duniyaa boobal la wattu alxuraan bi duniyaa nga xam ne booba man mën na alxuraan ma noppi waaye nag mi ngi sëñ tubaa mu ngi koy tërbiye di ko teg ci yoon wa nga xam ne fa la nit di jaar ba mën a yegg wan yoonu tërbiye nan la ko sëñ Tuubaa doon doon tërbiya euh, tërbiye gi mooy borom daaru mës la tëddandoog sëñ Tuubaa ci basam waxuma la lal mës ta dox muy làng ak mësu koo jiitu sëñ tubaay jiitu borom daaru topp ci ginnaawam boole ŋàbbu nag seetal ak sëriñ Touba ak gare te booba sëñ Touba wuuteegul yoon nga xam ne boobu sëriñ Touba maam Thierno ak Cheikh Massamba Diop Sam dañu leen daan reetaan borom daaru mii dañ daan wax ne larub sëriñ Touba xam dañ ko daan reetaan di ne kii daal du dara lu may jaamu sëriñ ndax sa doom yi bàyyi ngay daal dàllam di yoru setalaam daw topp ci ginnaawam loolu ak ndox dong la nga xam ne dañ ko daan reetaan ak di ko di ko doyadal waaye boobu moom xam na la muy wut xam na la muy sàkku ca Cheikh Ahmadou Bamba mu ne kon sëñ Moussa Ka ne mësula juuyoog ndigalul Cheikh Bamba mës la fanaan furul fa suuf fa der ba buy dem mu yor satalaga ak deram ba ak téere ya ak daajal di saf laram ba mësula juuyoog Bamba mësta juum ba tàbbi néeg mam fa gis nga borom daal li muy nekk ci Serigne Touba lépp li jamono di metti metti li xiif di bari bari ak soxna Fatou Issa ni ko suñ borom joxe woon wërsëg mësta tàbbi néeg soxna Fatou Issa daana fanaane xiif di ko yendoo waaye du dugg néeg soxna Fatis moom moom so moom Cheikh Ibrahima boo gisee sëñ Tuubaa di tere néeg jigéen ñi bu ko daan wax wala mu ne dongab tërbiye day moytu néeg jigéen ñi san la yee ko tax di wax waaye jigéen ñi ci sax taxul ñu wax loola moom ak yàqule la ci yow waaye soxna Fatis ni mu amee woon wërsëg ak ni mu mënee woon lu bare bari waaye téewul borom daru daana xiif xiif bu metti nga xam ne la xiif ba di metti metti la muy tartar daawul dugg néeg soxna Fatis loolu ak taalibe bi yàgg na ci keroog bi sëñ bi soxna Faty Isseu génnee àdduna Sëriñ Tuubaa taxawul ko boppam ca ca Thièyène ak yi ca xew yépp waaye lam ca def ak ak lam ca wax mu ne kon sëñ Tuubaa ko yar rabbaaka shaykhuka hatta sirta mujtahida fi diini haqqan fa anna lahu yuzika hadayta sharaqta haqaqta sadaqta fa ma fi hubbi ahmadu shaykhi man yudali nee na ko yow sab sëriñ moo wala yar ma Sëriñ Tuubaa ba nga mujj di jàmbaar ci diine boole nga shariat boole dee jubal nga dëggal nga daal na bu ñuy wax bëgg sëñ Tuubaa nag yow amoo ci mbenn yaa gën a bëgg ñëpp Cheikh Amadou Bamba kon sëriñ Tuubaa moo ko yaral boppam moom Cheikh Ibrahim borom Darou Mouhty ba mu koy yarit xoole yi mu ko digal wa bi anni aminun bik bi an la yastaxil bi ba'd al-faraid wa nawafil wa rawatin ila bi taalim maa ngi lay digal dinaa boo noppee ci julli farata yi ak naafile yi bu liy teewoo lenn lu may jàngale nga xam ne position bi mu féete woon mooy di jàngale maa ngi lay digal topp ndigalul yàlla ci lépp lu nëbbu ak ci lépp loo xam ne lu feeñ la daal di koy wax ne ko képp ku dëgmal yàlla Sëriñ Tuubaa ko wax borom daaru ne ko képp ku dëgg dëgmal yàlla noppalu noppale ku dëgmal yàlla rek noppalu noppale ku dëgmal lu dul yàlla nag dana sonnal boppam te du dañ di sonle daan na ko ceer na bul sàkk mukk ab noflaay lu dul ci jëm ci yàlla sa borom mi dajale lépp daan na ko jëm ci yàlla te jox ko sa bopp nag yàlla boo dëggalee sa yaakaar ci moom yàlla du tas sa yaakaar jooju kon loolu mooy wane yar gi mu ko yar ak jox gi mu ko jox wàccuwaay waaye yëmu ca nag borom daaru boole ca nag dëkk bu sëñ Tuubaa masam borom daaroo ci jiitu ci ko moo sanc ci salaam dese sin moo sanc Tuubaa wasa sin moo sanc Mbàkke Baari moo sanc Daarul Mannaan fu sëñ Touba am rek Cheikh Ibrahima moo fa jiitu sanc ko sëriñ Touba di ko tàggat di ànd ak moom muy jàngale yor daara ji ndax sëñ Touba moom la wuutaloon ci muy jàngale alxuraan ji sëñ Touba maam Thierno daan jàngale alxuraan sëñ Dame Abdourahmane Lo daan jàngale alxuraan sëñ Mbàkke bu sa yoroon wàllu xam-xam bi maam Thierno daan la jàngale it wàllu xam-xam ndax bari na ci yoon wi ñoo xam ne euh, Cheikh Ibrahim moo leen jàngal xam-xam. waaye loolu lay tegtale bari xam-xamam ak ragal yàllaam moo di dañuy wax ne boroom xam-xam bi dañuy wax ne ah, ragal yàlla du nekk mukk ci lu dul xam-xam xam-xam du jariñ mukk ci lu dul jëfee jëfit du baax mukk ci lu dul sellal ak sàmm jëf balaa jariñ day sell borom it day sàmm borom daaru nag bi ko sëñ Tuubaa yaree it melo yii la meloo yashadu an dunya wa tii bi xururiha yaxful xadimi bi taaxatu rahmaan ku dëddu woon adduna mooy Cheikh Ibrahima Fati danaan roy Serigne Touba ci topp yàlla wa yuallimu al awlaada wal atbaa fi safati al aqid mawlid zamaan wa yuqimu sunnatahu bi tajdid al wudu wa yarsulu al awqaadi bil idmaan borom daaru danaan yar ak njabootam ci lan la leen di yare ak ak ñi ko topp mooy ci pas-pas bu dëgër la leen daan yar waaye nag danaan dundal sunna ci di yeesal am njàppam fu mën a nekk danaan fuglu waxtu borom daaru danaan fuglu waxtu maanaam day waajal waxtu wi lu yàgg di ko xaar mu ne daana digal xat kaana yamuru kullu man fi daarihi bi taadubin wa bi taatil manaani borom daaru daana digal ku ne fi këram ku nekk ay teggin ak topp yàlla ndax nit ki mënta am lu muy wut mukk lu lu ci ay teggin mu ne waaye wa yaumuhum bi jamaati fi kulli awqaati salaati mutammimul arkaani borom daaru li daan xat-xat ni jamono di xat-xat ci moom moo daan jiite ci jàkka ji loolu suñ tubaab fi ne moo daan jiite yaqumu la yaay raakan baxda saw mi sëñ Tuubaa da daan woor bëccëg yi di julli guddi yi di ko naafile ba noppi bu julli jotee sëñ Tuubaa mooy jiite di julli borom daaru yi moo daan jiite ci jàkka ji te ku jàpp doo dugg jàkkay borom daaru li mu ay atam mooy li mu ay setalam ñaari yoon la ma sa tiim ci àdduna te ba ma mel ne xëy na te juróom-ñetti fukki atam ñeenti weer la man loolu lépp borom daaru dund na ko ñaari yoon la ma sa tiim te ba ma amee ndox fay ko te ku mës ta jàp doo dugg jàkka kon loola ca la njabootam moom Cheikh Ibrahim mu en taxati cheytaan ku sàmm la woon moom borom daaru ku ragaloon yàlla la ci ab yëngoom ak dalam mu ne waaye nag axlaaqul quran siimatul huda wal xaqu day dinaku bila kidmani na jikkoy borom daaru mooy alquran ak jub nee na dëgg mooy mandargaam ci lu amatul nëbbu bi makaarimil axlaaq toxraf wasfahu wa bi kulli awsafil xadimi daani nee na boo bëggee noppalu daal moo mboolem tedd ngay jikko yëpp moom la borom daaru lambo waaye boo bëggee noppalu mooy nu mel nu Sëñ Tuubaa mel rek noonu la borom daaru maanaam sëñ Tuubaa moo simmi ay jikkoom solal ko Cheikh Ibrahima Fati mu ne kon jikko yu sell yenn ci moom moom la dajale ci moom jox ko ko jikko yooyu nekkoon ci borom daaru nag moo tax almashar yi muy Cheikh Ibrahima Diop almashar yi borom xam-xam bu rëy boobu nga xam ne yibra kumba silli la ko sëñ Tuubaa daan wax yibra kumba silli sëñ bi daanaka wax ko yibra kumba silli ku la jàngalaaru mu ne ko sama bàyyi ku amoon maanaa la Cheikh Ibrahima yi xam ne ñiy gëstu ay waayam xam nañ ne Euh, fan ni baxaru yi mu sax kenn musu ca way moom rek moo ci moo ci ma sooy te ab xaadir la woon ko amoon mbooloo la waaye moom dafa am fu mu dajeeg sëñ bi fin daje mooy bi sëñ bi nekkee ci géej gi Cheikh Ibrahima Diop Machal yi dafa amoon bor juróomi téeméer maa ngi doon gëstu nag dañoo waxoon ne dafa gasoon juróomi pax def ko ci waaye li ma mujj gëstu te jëlee ko sëñ Baye laa Diop nee na booba li ñuy wax garabu xël ren ba jëm pen fan la bind lettre yi xar ko def ko ci te boobu sëñ Tuubaa ngi ci géej lan la def ci lettre yi damaa am boru juróomi téeméer damaa bëgg yonent bi fayal ma téeméer Seydina Aboubacar fayal ma téeméer Omar fay téeméer Ousmane fay téeméer Aliou fay téeméer def ko ci garabu xel gi sëñ Tuubaa ci géej gi ba ci géej bu ñëw sannu seex bi dëkk seex ci yoonu bi sëñ ci géej gi mooy Ibrahima di Machar bi ndax sannu si la seexee ci fukki fan fukki fan ci weeru koor te juróom-ñaari fan la ñibbisi ci baraxlu door doon doon doon doon 11 novembre 1902 doon juróom-ñaari fan ci Soxbaan moom la sëñ Tuubaa ci waaxu Moussa Chiri boobu ci port bi ci Ndakaar moom la sëñ Ba nga xam ne keroog tubaab yi taal nañ benn kii de canon pour sargale ko moom la tubaab yi taal keroog waaye li gën a yéeme boo demee ba Cheikh Ibrahima Diop almachar yi bi sëñ bi ñëwee Sannoos yi bi Cheikh Ibrahima Diop yëgee ne sëñ Tuubaa ngi Sannoos dane ginnaaw sama bor bi bindoon naa ay lettre di ci di ci dagaan bi te dégg naa Ahmadou Bamba jóge na ci géej gi naa dem fa moom wax ko sama bor bi bi Cheikh Ibrahima Diop di dugg si ci suuf si dëkk bi daje naa ñu koy gàttal na ko ndax yaay Cheikh Ibrahima Diop Massar mu ne Ibrahima Diop laa tudd dëkk ñu ne ko yow la ñu sëñ Tuubaa yónni ci yow mu ne man bi may ñëw tàggoo man ñu ne ko ñu ne ñu daal sëñ Tuubaa wax ne gàttandul leen ma ndongo la ñuy wax Ibrahima Diop Massar bi Cheikh Ibrahima Diop ne nuyu sëñ Tuubaa sëñ bi waxagut moom dara da koo joxe ñaari kocc yu def ab xaalis sëñ bi ne ko feccil ba ko mu fecc ko mu ne ko xool ko nu mu mu wàññi ko muy juróom benn téeméer sëñ bi ne ko ber beral benn téeméer Cheikh Ibrahima Diop daal di ber benn téeméer sëñ bi ne ko téeméer bu njëkk Mouhamadou Rasulullah moo la ko jox benn bi Ababacar Omar Ousmane Aliou la ko jox bi ci des maa la ko sante ngir yónnee ba nga yónnee woon ci man mii la yónnee waat ci yow te boobu sëñ baa ngi ci géej Cheikh nag daal di wax ne kon laa tatlubanna min siwaahul fadl min min sa taabin fal fadl min gayri xat kaana masluba nee na foo jëm di sàkku ngëneel da ngay réer dara nikkatul lépp ngi ci sëñ daan na kenn yorutul kenn kenn yorutul dara daan na nun nag waa Baxdaad lañ daan ñee ak waa Misra waaye bi ñu amee si Amadou Bamba léegi waa Baxdaad ak waa Misra moo nuy ñee cheikhun bihi qad unil naa kullu makramatin atta bihi rabitat te booba ab xaadir la woon mu daal di jaayante nag ak Cheikh Amadou Bamba daal di koy jox boppam nag Cheikh Ibrahima Diop al Machar moom nga xam ne kon xam-xamam ak meloom daana tax sëñ bii di laaj yooyu meloom ma ni ma ni murid du nay Gana Messere li muy wax Cheikh Ibrahima jar na joxe sa alal ñëw leen joxe seen alal ji ngir yàlla ak yoon Cheikh Rafati lu ko waay jox barke borom daara mus ci ëttëb Cheikh Miqdaad Mbakke bii billaahi bu dee ne bu mu fi jóg boo bëggee jënd warta di nga jën warta ndax am na ko mën na ko ñëw li muy wax jar na ko waay mur du nay Cheikh Ibrahima moomu nag mi ma la doon nett léegi ndax xam nga da ngeen di dégg addis li tax ma indi ca taarif boobu mooy man man duma ma gëstu loolu sax xanaa nit ñi xam nañ ko tàyyi nañ koo nekk demee ci la yooyu du ma wax lu dul waxi sëñ Touba ak ku wax jëmee ci sëñ Touba aw ma jot léegi nag ñiy waxi addis da ngay dégg ñu ne riwaaye bi an diw an diw di ko taxarifal moo tax may wax ne kii wax lii ci borom daru ponkal mii la du n'importe qui rek moo dajale fee naan la am Thierno naan Ibra Diop Machadi bii fi mu toll ak cir bi mu am nga xam ne bu ko suñu tubaab message seen day muuñ danaan ko yonent bi ma yónni woon ci yow kon bu dee cër bu rëy Cheikh Ibrahima Diop moomu nag moo wax ne maam Thierno Ibra Fati de ida takallama abdalil wara durara wa in bada wajhu abdalahum xamara wa yuxjulu laysa yowmal basi muntasira wa yuxjulu xaysa yowmal juudi mubtadira nee na borom dëru bu kaddu koy wax wuru sa ngalam mu gën a neex kaddu borom dëru ko làq nee na xar kanam ba bu nee tëll day mel ni weer nee na noonu la borom daaru melo nee na wa yux julu la si yomul ba si muntasila nee na bisub tar bisub wenc bisub ñàkkante bu amee gaynde guy dox ci digg mën nig nee na borom daaru koy raw waaye yëpp julli xay sa yomal juudi mubtadira bisub tabe ak joxe alal nee na asamaan su xottiku buy taw asamaan suy xottiku na muy mel ci ci ci sottiku ndox la nee na bisub joxe ak tabe amee nee na borom dëroo koy raw xoola bisub njàmbaar bu amee loolu doy na ci rek ci xew-xew bi xewoon ci darul manal keroog bi ni bënn sàkkiti sëñ Tuubaa yi di bënn gaal yi di dagg sàkkiti Cheikh Amadou Bamba keroog am na ci koo xam ne dafa dawal aw fasam bi mu dóoree jeesi ji mu yor ci laaj bu njëkk bi laaj bi daa dagg ba ca laaj bi ci suuf sàkkit bi na lañ nga xam ne suuf si tànki fas wi suuf si sa xëpp na borom daaru suuf borom daaru fi mu ferantulaay yor jukki bi alxuraan bi di jàng dana xin ñëpp jàkkaarloo ki dóoru laaj bi ba mu dagg borom daaru na ko ak cam sàkkit du fayu da nga ko waroon def fii daal di joxañ dënn bi na koy cam sàkke du fay da nga ko waroon def fii kooko nee na bu suñ Tuubaa déclaré woon guerre wet gu Cerno Ibra Faati jëm du ma ndax keroog bi ma daggee sàkke bi mu xinniku ak ba ma koy yalwaani fas ca Daaru Muxti genn karam googu rek la ma Cerno xoole kon loolu moo di ak njàmbaar te loolu wax naa ne gis naa ci ci ci Paris archive boo xam ne tubaab yi dañoo wax ne xeex bi ñu doon xeexee sëñ Tuubaa ñaara ñu tax a benn bi mooy seetaan gin seetaan ba sëñ Tuubaa bind ak ñàkk a jàpp gin ñàkk a jàpp Cerno te tubaab yi seere woon ni ki gën a jub mooy Cerno mooy bi sëñ Cheikh Awa di jënd oto tubaab bi da ko laaj na ko kan mooy sa bàyyi sëñ Touba borom Cheikh Awa na ko mooy sama bàyyi waayu juruma mu ne ko mooy sama bàyyi waayu juruma koy sa bàyyi Cerno mu ne ko mu ne ku jub ka loolu la ko tubaab bi wax keroog tubaab bee ko seereel keroog na ko ku jub ka kon gor ak jom ak fit moom la Cheikh Ibrahima boole mu ne borom dër nag boo dajee moom yii lay dox fa lasta talqaahu illa daafixan darara aw xaadiyan watara aw taaliyan aw muhyinan sunanan aw mu'tiyan minanan aw mu'liyan mikanan aw aadiyan zumara aw naatiqan xikama aw jaaliyan zulama aw shafiyan saqama aw mubdiyan bushara nee na borom dëru boo dajee ak moom loo koy fekk muy def foo ko seen ma ngay jañ lor foo koy séen nee na ma ngay faj aajo foo koy séen ma ngay jàng alquran foo koy séen ma ngay dundal sunna foo koy séen ma ngay joxe xéewal foo koy séen ma ngay yëkkati daraja foo koy séen ma ngay jubal mbooloo nee na du wax lu may xekam nee na du jàq day dindi ay njàqare di faj ay tawat kon falaa taxut wala tax sa manaqibuhu bi mantaqin aw bi aqlaamin ni tabax sira nee na boo jëloon xalima yëpp adduna bi boo fexe woon ba jël garab yëpp sot ko def koy xalima jël géej yëpp def ko daa bëgg bind may borom dëru nee na géej gi danañ jeex xalima yi daneen jeex te doo jot may borom Daaru Muxti mu ne fardun yaqumu maqaamal jam laysa lahu mislu fa huwa shamsul lil kiraami trois nee na borom daaru mooy kenn ku mën a remplacer aw xeet jënn jëmm ju mën a remplacer peuple loolu sëriñ Falloum Cheikh Ahmadou Bamba waxoon na ko Cheikh Ahmadou Fadal bi mu ñëwee ci borom daaru dane ataytu ila al mi'ta'i fi daarihi al mu'ti li yushki shab al qabdi minni bil basti hamilu xisali sabri su machine nee na borom daaru kenn la koo xam ne ab peuple lay remplacer nee na jënn jëmmam rek union la moom Cheikh Ibrahima mu ne kon ahyaan huda fi zamanin qad badat bada qad badat bidaahum saniatun fihi wal islamu qad nasara mubtaghiyan wajha rabbil arsi duna hawa hatta bi qad sama al islamu wa intashara nee na bi muy dundal ak jub di dundal baax nee na boobu ak réer dafa da jaxasoo moo tax ku ñuy wax Muhammad ibnu Ahmad Daymaani dana wa daaka Ibrahima man laysa mislahu mada dahr mawjudan fa ma kaana adyaba naar bi nee na adduna moom lu ne mën naa doon ñaar ba mu des Cheikh Ibrahima nee na kenn dongul waaw ah. nee na Cheikh Ibrahima Fall kenn dong la mu ne mooy koo xam ne xawal alma wal aadabu wal bishra wa nada wa amma bihi al aqsa wa wan kaana aqraba nee na borom daaru làmboo xam-xam boo xam ne ak teggin ak mbégte moo xam ne ku soree ku jege ñëpp a ca jariñ almashar yi ba tey moo xam ne warisal ula wal madde wal fadd wal huda fa ma fi jamil ard yalqa nadiruka Cheikh Ibrahima Diop nee na yow borom daaru yaa donnu yaa donnu tedd nga yaa donnu ngëneel yaa donnu jub nee na kaw suuf yëpp booy dox di wëreel doo fi daje kem ku mel ni borom daaru mu ne ko fa law laaka maatal juudu wa diin wa hudaa wa maatal du na nas law laa du yuuru ka nee na ko yow borom daaru bu du loon ak yow ak tab ak diine jee yow yaay ki nga xam ne bu du loon sa kër kër yëpp dee yow sa kër ceerno moo dundal kër yi gars yi kon kër gu dund ci sa kër la dund yow borom daaru ku ñuy wax sëriñ Mamar Sey sëriñ Mamar Sey nee na wa cheiquma fil xalqi bi almi wa tuqaa nasiru lahu faaxal xalaayiq bil basli nee na borom am ci xam ak jikko ju rafet ak ragal yàlla nee bu dee nag ak tabe borom daaroo ci féete ñëpp kaw ay ibra la si mazala linaasi furxatan walaw laahu laama naasu fil faqri wal jahri nee na borom daaru mooy ki gën a tabe ñëpp bu dul moom nit ñi ak ñàkk ci la faatu wa daaru ko daarul almi wa diini wa tuqaa baytu ko baytul majdi wa zuhli wal fadl nee na ko sa kër mooy këru xam-xam këru diine këru tedd nga nee na sa kër mooy këru mat mooy këru dëdd àdduna sabaqta fihul almi qablu mujahida awa yow borom daaru kàngami borom xam-xam yi yaa leen jiitu yaa ma sa xeex noon noonu ñeenti noonu yëpp tënk leen yow Cerno bakkan yaa xeex moom daan ko daan ak bànneex daan seytaane daan adduna ba gañe leen ñii mosuñu laa laal fenn yow borom daaru mati mu ne ko kon yaa not noonu yooyu nga xam ne muy bakkan ak bànneex ak adduna ak seytaane yaa xeex ak ñoom ba not leen loola it kon mu wax ko ne ko ci ay melo yooyee am na benn sëtam bu wax ne lim def itteem mooy liggéey ak sax ci jaamu bu wér da daa di ko jox sëriñ bu mag ba tusul ci njàpp lay julli yee ci jàkk lay julli yee du tim lu dul ngant dawul julli waxtu ci kër sariatullahi ak aqiqatu la dëkkoo ku ñëw fa moom mu jox la gii géej baabul ma nee na borom daaru yii la boole woon sariatu ju mat sëkk ak aqiqatu ju mat sëkk sëriñ Tuubaa yar ko doy loo ko jàngal ko mu am ay taxsiisi boppam loolu la ay ngëneeli boppam sëñ Touba ko jàngal sëñ Touba ko sëñ Touba ko wóolu sëñ Touba ko doyloo sëñ Touba nee na mooy aminu sirri yi ki yor secret yi sëñ Touba yëpp mooy Thierno Ibrahim nee na mooy përëgum nday jooram it borom daru waxti borom daru bokk na ci ak njàmbaaram nañ xool doyal doyloo gi ko sëñ Touba doyloo ba bi muy dem ci géej gi mu batale ko ak yoon bi loolu fi ne jamono dañ koy nett di jàll rek. waaye lu mat a def am njàngate ngi noonu ñaata nit ñoo nekk bitim réew yónnee ku leen tabaxal kër kooka lekk ko ñaata nit moo batale nit njabootam bàyyi ko fa kooka jaxasoo ko soxnaam tasaare këram ba kooka ñàkk ñaata nit ñaata nit ñaata nit borom daarul moxti diirub sëñ Tuubaa nekk ci loxoy tubaab yi ba nim ñibbisee ba sañ ci njéeréem sëñ borom daaru amu fi kër amu fi mu nekk ba 1912 kooku guree diwut opposé wut yokku dara coow lee bari léegi jamono bari rek léegi jamono yi nga xam ne koo dellal dir ko mag da ngay dell ak sa rakk dong nga ba sa mag sa mag doo bokkal benn baay mu nekk sa mag nga xam ne xool gi ngay xool mooy li mu am mu ñàkk ko jot ci rek bala ngaa kontaan rek sa mag daa fii suuf nga xam ne loo koppi woon ko ko noo toll woon ko ko borom daaru sëñ Tuubaa bi muy dem ci géej gi xoolal fi borom daaru wax ci toll fanweeri at a mooy 1895 ñii gëstu ci histoire xam nañ ne réew mii di Sénégal ak Afrique de gi ku fi mat a rey tubaab bi rey na la ku mat a jàpp tubaab bi jàpp nañ ñu ne duut dara yënguwut léegi nag dégg naa ñuy jéema a rajo yeeg xam nga comme télévision yi moom bari na ci télé yoo xam ne moo jaaykati jimbo yi ñoo yem mooy boo amee njëg rek jënd publicité rek la mooy ku am njëg ñu jaay la léegi nag comme commercial la léegi la nga dégg ku toog gàmmu jub si ba màggal mu ne daj dégg naa barki dem ku ne sama maam ba mu demee bureau dara la mu fa def kenn defu ko benn waaye di tàng mën na ko wax na dëgg bi la fa maamam def kenn defu ko fa maamam moo wax góor na sanalaat na ko yaay yàlla yaay sama waay loo nekk ca laa nekk loo waxut waxuma ko daan na ko Ahmadou Bamba mi dooj dongoo la fa maamam def kenn defu ko fa wax na dëgg di jërul mer ndax léeralu leen li maamam def daa waroon wax li maamam wax rek gis nga lu waay mën a nettali nettali yii doo ko dégg moom jeewal dañ koy tëb ndar kenn ko sañ julli géej moom nit ñàkk jom ba di ko tudd gabam dem delsi ijhar rujuux yi moom lu xasida yi bari bari kenn ko bind muy Cheikhul Khadim ijhar rujuux yi ku dem delsi rek ko seen wax aller moo romb ko rek da ko rejewul moo dem ba maa yomba yombalul boppam moo dem ba wéri wéren jewul tuub loo juróom ñaari kuy jinne naa baaraam dongam ya kàkku naa kook kalliraa kook as naa kenn du dara maa kenn tarkal la jërëjëf léegi nag wóor googu li nga ciy jàngat ma bëgg ko ci dégg ci ngor borom daaru bi sëñ Tuubaa dem dem ci géej gi fanweeri at na borom daaru Muxti am sëñ Tuubaa lim njëkk a def test bi mu jëkk def mooy bi lettre yi baree di convoqué Cheikh Ahmadou Bamba sëñ Tuubaa moo wool boppam borom daaru na ba mu ñëw mu ne ko ñëwal demal ma Ndar foofa mën nga caa jànge murit saadix dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mooy borom daaru Muxti mandarga yi tegtale mandarga yi murit saadix yépp a ngi ci moom ashadduqu fi mahabbati cheikh imtisaalul awaamir tarkul i'tiraad salabul ixtiyaar ak murit dëgg mooy dangay bëgg sëñ bi muy dëgg sëñ bi gënal la sa bopp gënal la alal gënal la njaboot jëfe ndigalam bañ a diingat sëñ bi bàyyi sa tànn li la sëñ bi tànnal moo di tànn sëñ Tuubaa de yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi dib sëriñam nga xam ne dane bihi arumu jamil xayri min maliki fool wasila fi sir wa fi alani sëñ Tuubaa nee na mahat mahabatil muxtaar sayidina hubbil maganiya wal ahlina wal walada dammi wa ahli wa awlaadi fidaun lahu abdan xadima lahu muskaana li sanada sëñ Tuubaa ne yonent bi ma gënal doom gënal may alal gënal ma kon sëñ bi lu mu war a doon ci yow sëriñ bi yaa gën alal yaa gën barab gënu nit ku koy ci yow mucc am mbooleem mébét asal taalibe bi fekk sëriñ bi gënalu ko lépp du am li muy borom daaru kon bëgg sëñ Tuubaa tax bi ko sëñ Tuubaa dee ñëwal dem ndar mu xool mbëggeel ga murid saadix gi tax bi mu ne ko ñëwal dem mu xool jëfe ndigal ga dii nga tut lu ma fay fekk ak lu may dal bàyyi tànnam xam ne li ko sëñ bi tànn la gën loolu rek fi ngay jëkk a jàngee matu borom daaru fanweeri at ñu yebal la ndar ba nga demee yux yuxi woo waree woo foog dawee di waree woo foog manqué taxaw tontu góornóor ba góor góornóor xam ne kii fi ñëw mooy jàmbaar waaye lan moo gën a triste lan moo gën a tiis lan moo gën a métti 10 août 1895. 10 août 1895. sëñ Touba takke ca mbaki Baye. tubaab bi ku mat a nee naa la tubaab bi fàtt leen ñi fi nekkoon mooy ñuy seetaan ndax bëri bi moom ñi doon daanu daanu nañ ba noppi jenn lamb ju sa a sajj mu Cheikh Amadou Bamba ñi ci des taxaw suñ tubaab fàtt leen ndax nit ñaa ngi koy topp muy sañ ci dëkk ñu di ko gëm ñu bëgg sëñ tubaab mii ne tubaab yi naax saayal ko ngir ñu am doole léegi la nga dégg ñu naan diw doon na rafetal ak nangam ak nangam mais lañ bëggoon mooy sëñ bi duutu del si te loolu la koy weer mooy la fara crespé net li woon 1912 bi sëñ bi ñibbisee rek doy na ca misaal waxoon naa ne léegi xam-xam jërte na bu ndax gone yi gëstu nañ te gudd nañu tànk te fu ñu dem xam fa la fa xew ku mel ni man nag lu mu xam te ne ne ku teel ndax ku mu ci faale ndax dinaa ko gëstu ba mu doon source bu leer ndax ginnaaw wax dafa ku ne sa télé wax ñi defu dara di wax di publicité ñi ne ci dëgg tamit mbir mu wóor nañ ko wax protocole beeg kapp-kappal beeg loolu lépp amul 84 ma rëbb lañ dajaloon ndar 24 yëpp 40 44 42 yëpp dëkkuñu Sénégal 42 yi ñëw dëkk fii ñu te tisaaroo ci réew mi kenn dong la ñu yóbbu exilé ko 1853 at mi Sëñ Tuubaa feeñ jamono ki ñu njëkk ci Sénégal fii la bàyyi ko te kenn mës sa dellusi mosoo dégg ku dellusi mosoo dem ku loo fi dégg ku netti mosoo dégg kenn demoon kenn dellusi waat Cheikh Amadou Bamba tontu loo xam ne kenn tontu ko bët bu set ñuy damoo nañ màggal da ngay jàpp télé bi di seetaan dégg ñu naan na nañ fàttali joloo lay diw waajal ko ndax jàmbaar moo dee tund sangam moo dee xur sangam moo kuy màggal ku dem dee nooy ñàkk a ki dem delsi ah bis bii bu amuloon benn bis doom bis bii bu amuloon benn bis doom bis bii la sëñ Touba ñibbisi woon dajeeg borom Daaru Muxti léegi bu ñëwutoon lay yi wane ne sëñ Touba dellusi na lii ci la bokk kon njàmbaar googu Cheikh Ibrahim sëñ Touba takk 10 août 1895 génne bisu gaawu ci këram googee fas wam waroon awnullahi la tudd malaanum sooy la teg ca kaw dégalee daa mel ni xaalis weex tal sëñ Touba duggaanul ci kër gi keroog bi borom daaru ñëwee war fasam woowee di awnullahi mbooloo mépp nii nu toogee ñëpp toog na gorom mbooloo ma toll ci bari ba bu ñuy séddale reer waxtu timis ba ñuy julli fajar sëñ Dame Abdourahmane Lo Cheikh Massamba Diop Sam sëñ Dame mag ñëpp fees dell ku ne nag borom fees dell Cheikh Ahmadou Bamba bi mu waree ci fasam loxoom bu sell bi ci bopp Cheikh Moudou Moussa la ko teg jël loxoom bu sell bi teg ci bopp Cheikh Mamadou Fadal ne leen dénk naa leen yàlla ak seen bàyyi Cerno daal na gis borom dër na ko Cerno mu ne ko Bakke mu ne ko rikk na nga muñ rikk na nga gore rikk na nga am jom daal dina wërañ war fasam won ginnaaw borom dër Cheikh Modou Moussa laxasu ci moom Cheikh Abdoul Fadel laxasu ci moom murid yëpp jaaxle Cheikh Modou Mbaye jëkk na ko jox naa la sama bopp ngay sama sëriñ ba kee ñëw ñëpp yëkk ci borom dër mu boole njabootu Cheikh Amadou Bamba bi boole yoon wi sëñ ko ginnaaw muy yaakaaram di lépp te ku mas a dajeeg ñii muy dajeel si waat borom dëru yooyu boole yooyu problème te toll ci fanweeri at képp moom Cheikh Ibrahim boole dëgër gu toll noonu aku fit keroog bi borom dëru nekkee foofu diir ba mu fa def bu néew la sëñ Tuubaa na ko yoral ma jaboot gi rek ak foo ma leen mën a yoral keroog bi borom daaru sëfee bagage yi ca mbakki bari lii ay loo yi ay nag yi ay mbaam ca la ko sëf keroog bi muy génn góornóor daa joxe ndigal ñu taal këru mbakki bari biñ taalee kër gi mu ne tur borom daaru bëgg a gestu fàttaliku ci rikki na nga muñ rikki na nga gore rikki na nga am jom borom daaru dëgg mal nag yor njabootu Serigne Touba jigéen ñi doomi sëriñ Touba yi yoon wi Cheikh Ibrahima fu mu jëm bëgg a wàcc ñu ne ko déedéet sëñ Touba jàpp nañ ko te yow mii ñii jàppe yow lañ ciy teg ginnaaw sëñ bi jàpp nañ ko du lil si xam nga ne kat te ña ko jàpp buñ dikkee yow mii la ñuy faat te koo dal këram des na ko faataal sëriñ Saliou Mbacké moo nekk li sëñ xalilum sëñ Moustapha Absa na ko sa maam borom daarul moxti daana fanaan ci mu sàq njabootu sëñ Touba bi ñàkk fu mu tëdd daana tax borom daaru defarum sàq ba mu jekk mu dugal si njabootu sëñ Touba gi ñu tëdd mu tëdd ci buntu bi waaw mu jéewul lu may yebal ko guy nguraa fa la Cheikh Balla gën a jamono 1900 guy nguraa lan la ak mbay dee lu ñu bëggoon bu fa borom daaru dëkkee wàccub liggéey njabootu sëñ Tuubaa gi wàccub liggéey foofee nag la borom daaru tawat dal fa njabootu sëñ Tuubaa gi Cheikh Modou Moussa tawat Fadilu tawat Cheikh Mouhamad Lamine Bara tawat borom daaru bis boobu la jëkk a tuur ay xéewal gisatul sëriñ Tuubaa njabootu sëñ Tuubaa gaa bi tëdd ñëpp tawat borom daaru julli ñaar rakk di jooy ba rongoñ sotti ko ci dënn mu ne yàlla yàlla sama borom sëñ sama kilifa gu baax kii dem bàyyee ma njaboot bi ba naree dikk ma koy laaxan kenn na soxna Faati may dem wala mu daaw balla miy dem wala man mii ma dem waaye bu Sëñ Tuubaa ñëw mukk ma naan ko diw nekkut fi. mani mani. xoolal woowu melokaan. bu suñ gànn ma sere gën a gore. Eh, eh, fii mu toog di waxtaan. si borom nga xabaar ki ci des na ko tàngal duubal rek lay jar mu ne ko yëgoo ne Sëñ Tuubaa tubaab bi faat nañ ko ci géej ki ci des moo ne ko lu cer mooy def te boobu borom dëru nga jaqi mu ne ko day tasaare daara ji rek jël sëñ Mourou sax ak sëñ Fallu jox ko Cheikh Sidiye dem kër nijaayam xoola loolu tey ku lay coow borom daaru googu wéet ak googu tumalaati ak Cheikh Rahim borom daaru ànd ko dogu ànd ko fit am ànd ànd ak njaboot régler problème bi premier réglage bi bi muy dem bàyyi sëñ Tuubaa moo dalal sëñ Moudou Moustapha dalal sëñ Fallu dalal sëñ Baara doon dem kaamilu sëñ Moudou Moustapha fekk na sëñ Tuubaa ci géej gi kaamilu sëñ Fallu pare na kon bu dee ci wàllu jàng xoola loolu ni mu ko essayer yoon wi ñaata cheikh mosoo dégg ginnaaw sëñ Tuubaa bi mu demee ci géej kenn ku xaj ci baa ko jëm fenn yoon wi gën a dolliku borom dooru di boole di jàng ko dégg lii ak nasaraan bi waaye téewul nañu delluwaat ca la euh, naaru gànnaar ba waxoon nga xam ne mooy borom nusratu nadim di alxaaji mouhamadou abdullahi bnu obaydourahman alaalawi achaarul muritani yi léeg dafa kañ borom dooru wax ne wa xiina asmaa alqadimu safara wa saydi kulla saydi fii jawfil wara abga yudabbiru rida fahima umurahu aqaahu ibrahima fa wadaa al amra ala mahalihi muwaffiqan fi shiddihi wa ahlihi fi kulli ma yuriduhu ta anna wa bi ta anni naa la maa tamanna nee na bi sëñ bi dogoo ci war a dem nee na te li muy rëbb nekk ci digg àll bi muy koom réy mi nga xam ne mooy jawfal waa jawfal faraa mi sëñ Tuubaa rëbb nga xam ne bu doon rëbb la mooy dafa rëbb la gën a rëy te gën a mat ñëpp xat ca nee na bi ko sëñ Tuubaa di wuti nee ki mu fi desal muy régler problème mooy mooy Ceerno Ibra Faty nee na borom dëru nag dafa teg yi fi équilibré ci boole bu taree ak bu neexee daal na kooku mooy koo xam ne fii kulli maa yur yu wuute an naa ci borom dëru ko nee na lu mu bëgg da cay dal tey wabita an nii naa la maata an naa nee na ci dal ca la amee la mu bëgg gis nga xaraf-xaraf ak parax-parax mayu dara dana tekki rek moom Cheikh Ibrahima lu yëngu bi bari bari daal mu ne kooku lu mu bëgg dana am te man Thierno lu ma sant naa ko def dara du ko déranger mu ne fa askanal ayaala fi duyuuri yaamuruhum min tilkumul xuyuuri dëkkal njaboot gi ci kër yi nga xam ne day wut néeg bu day wut kër gu yaatu def néeg bu rëy ci digg bi wutaat beneen néeg ci ginnaaw def fa bagage yi moom borom daaru wut juróom-ñetti ponkal yoo xam ne ñooy fëgg bagage yi di ko defar mu dëkkal njaboot suñ tubaab gi di wut bët bu set ba gàtt di leen mu ne mooy koo xam ne kenn ku ne mu jox la àqam di yar njaboot gi rabbal muridina wa aqlal banina nujabal askiya tilka sinina nee na at yi sëñ Tuubaa li ci géej gi yëpp Cheikh Ibrahima Fati moo jàngal njaboot gi waaye nee na moo yar murid yi fa maa atal ma illaa wahum ko xamatin xat baraaw shahamu nee na sëñ Tuubaa bi muy ñëw fekk na mag ñi fees del gën a bolli possible gën a gëm sëñ Tuubaa mu ne mooy koo xam ne nag sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa ko jàndal sëñ Tuubaa ko def ca meloom yooyee moo tax mag ñi mu bokkoon loon jamono jamono teeg moom ñëpp waggaroon ko nawoon ko ngir xam tolluwaay ba mu am ci digganteem ak Cheikh Amadou Bamba ñaata doom la ko sëñ Mur Diop a tudde nga xam ne mat na juróom-benn wala juróom-ñaar sëñ Aliou Diouf Lambaay ñaata doom la ko tudde mat na juróom-benn wala juróom-ñaar sëñ Mbàkke Jenn Cheikh Issa Jenn mi ku mu ko tuddee maam Thierno Ibrahima Cheikh Issa Jenn bokk na ci ñi taxaw boroom daaru bu mu ñibbee àjjana borom daaru Cheikh Issa Jenn daa waxoon bis bu ma doon rëbbi gaynde tey wutum mbakki mbakki Ceerno Ibra Fati lay àndal ngir ngor ga ak fit nee na gor nee na ngoree dëkk borom dëwroo ko def waaye yëmu ca Cheikh Issa daa seerewaat leneen keroog bi borom dëwru génne jamono ñu denc ko fii Cheikh Issa man ne man de Ceerno Ibra Fati yéem na ma ruu gi daa wàcc rek mu tabbee jam ne li ma ci yéemu mooy barab bi ñu ko denc mook junti bunti naa ne makk jàkkaarloo muy bayti gii ñu ko denc te moo tànn noonu nañ ma def fii mu ne bayti gii li ko denc ak bunti àjjanaa ne makk jàkkaarloo te ruug ceerno daa wàcc rek mu tabbee ca kon loolu xibaadatoom féetewoo yàlla ga ak melo ya moo ko mayoon la mu am ci diggante ma boromam mu di koo xam ne it yii la ko sëñ bi dénkoon xiyaadatul muridin wa irshaaduhum ila siraatul mustaqim taxfiisu zixaaril quraanil kariim wa taalimul ulumul islamiyya waajibatuhunna diiniya wa tarbiyatuhunna ala qiyam alislamiya imamatul muslimina fi lmasjidi wa iftauhum fi shuuni diinihim ihaanatul muhtajina wa ihdaaru mahrumin sëñ Tuubaa da ko moom borom dëru wommat murid yi jubal leen teg leen ci yoonam naw ñi alquran ak xam yar jigéen ñi jàngal seen waaji seen warte fi diine yar leen jiite nit ñi ci jàkk yi di leen ubbi seen ak di dimbale way ak ñu amul dara yooyu position te la koy confirmer ne loolu la ko Sëñ Tuubaa dénkoon lettre bi ci la bokk alhamdulillah ala kulli xaal wasalaamu ala babil kalaam wa man istafa athaaruhu min arrijal hada wa innahu ila muridi sadiq wal aql wathiq ibrahim salaamun tam wa ikramu am mujibu an taalama bi anni ala xayrin wa aafiya wa minni amanuku bi ijtihaadi fi taalim wa taalim wa fi lmasjid wa murni sa bi ijtihaad fi raqaati wa fi salaat wa fi julus fi buyutihim Sëñ Tuubaa mu yónnee lettre bi borom dara te mi ngi ci géej gi booba dana ko ginnaaw bi ma nuyoo bi ma santee yàlla maa ngi lay nuyu yow lettre bi maa ngi ko jëmee ci ila murid sadiq kon murid sadiq yomb borom daaru la sëñ Tuubaa na murid sadiq daan na ak mbokk mu dëggu nuyoo boo xam ne day ànd ak warmaal ak màggal li ko waral mooy na nga xam ne yow na maa ngi ci jàmm ak salaam maa ngi lay digal nag ci góorgóorlu ci njàngale mi jàng ak ak jiite ci jàkka ji ak yar jigéen ñi ci yoonu góorgóorlu ci jàng ak ci taxaw julli juróom ak sa sax ci seeni i kon loolu lettre boobu de day confirmer meloom ak digganteem ak moom bokk na ci lettre yooyu it min hamdulillahi taala qadimil mustafa sallallahu taala alayhi wa sallam ahmad ibnu muhammad bun habibil ghaniyi billahi taala an kulli rabbi bi kulli tabibi ila aqihi lati lam yuqaalif fi sigarihi wala fi kibarihi ibrahim ibnu walidi muhammad salaamun yuraqihi wa manaahu min muridin wa tahiyatun tusax fi sadrahu wa tayassiru amrahu borom daaru sëñ Tuubaa daa yónnee lettre na ko maa ngi ko jëme ci sama doomi sëriñ muy sama doomi way jur sama mbokk moomee nga xam ne mësta juuyoog man laa fi sixari wala fi kibari sëñ Tuubaa na borom dëru mësta juuyoog man du ci waxtu ndaw du ci waxtu man daal na ko maa ngi lay digal nag bu agsi lettre bi agsi ci yow maa ngi lay digal lii man Seexul Xadiim ndénkaan loo xam ne dana dolli ay may ci képp kuy ko ay njuum te maa ngi lay dénk xam-xam ak liggéey ak i teggin nanga nga setal sa xol yow Ceerno Ibra Fati ci lépp lu luy kon da nga nekk ku jiitu sa maas na nga toroxlu ci say bokk ci di leen laabire da nga mucc ci noonoo ak bañeel na nga suufe ci toroxlu ci bépp jullit da nga mucc ci sikk sàkk ak tooñ sama leetar bi saa yu ñëwee yow na nga ko màggal ci tuub na nga nooyal saw làmmiñ te nooyal sa xol ci jullit ñëpp kon da nga da dajale yii wépp waaye naa la tey sa wi ñu Ibrahima na nga jàngal képp koo xam ne jàng dana ko jariñ maa ngi lay dénk ci muñ ak sellal ngir jëm yàlla te boobu kon sëñ bi mooy yónnee melo yooyu ak moom ci moom beneen leetar beneen la ko suñ ci waa wax mata taqa aynaka ala hadi huruf fata yàqal benn katiba radiu an kouridan la suxta baxdu abada wa annahu talibun min llahi tabaraka wa taala maa yaxbitu fii jami amsalika fatib nafsan waqad ayna wala tasuf fi kawni hada min rabbika ilayka bi wasati wala wala man aqul wakim na na ko yow na nga xam ne saa yoo gisee lettre bi ma la yónnee yow Ceerno Ibra Faati na sa xel dal ci ne man sëñ Tuubaa gërëm naa la ba faw wutu duutuma la ngañ te yëmuma ci gërëm la maay demal saa bopp ca yàlla sakku ca moom mu defal la loo xam ne kuy nit dana la ca ñee daal ko bul sikki sàkk ne ngërëm lii ma la gërëm nag yàllaa ma wax ne gërëm na la jaare ko ci rasulaay ma wax ma ko ma wax la ko kon nag yàlla gërëm na la yonent bi gërëm na la gërëm naa la maa ngi lay sàkku nag la sa kem yëpp di ñee sëñ Tuubaa xëy na bis njëriñ wax ne gis texe mooy Ceerno Ibra Fati sëñ bi xëy na rek wax ko bis njëriñ na gis texe mooy Ceerno Ibra Fati gis texe mooy Ceerno Ibra Fati kon loola aw melo la woo xam ne euh, sëñ bi tegtale na ci gërëm yoo xam ne euh, gërëm na ko borom daaru ma borom daaru it mas naa wax sëñ Mahmoud Mbegere ne ko sëñ Touba day liggéeyalu sulaay ba mu jox ko àjjana man ceerno ma koy liggéeyalu ceebi yàlla nee na borom daaru di yëngal loxo bi ne ko man ceerno ma koy liggéeyal ba ceebi yàlla kon loola melo la ci digganteem ak boromam melo yooyu ko sëñ Touba sàkkul it bokk na ca sëñ Touba daana yóbbaale borom daaru mu ci ca péey ba ca foofa teew fa yombut de waxuma la di yóbbaale. wax naa ne ñi nekk ay gendarmerie wala nekk ay policier xam nañ ko solub tenue taxul a doon capitaine ba général ba lieutenant ba commandant man nga ko sol te doo ko doon doon toog palaasu sëriñ daa taxut a doon wàll yi. ñii di contexte ak a diingat bu ñu waxee ñu naan ñëpp a yem li ñuy wax du dëgg. ñëpp a yem ak sunu mag yi réew meeg bindu liste bu gudd mujj sañ Tuubaa baa ñu def ko ci digg ba diw diw diw dama sol tenue gendarme baab militaire taxul du général ñii ñuy dendaleeg Cheikh Amadou Bamba sëñ Touba da du seen morom Thierno Ibrahima fàtte leen man waxuma sëñ Touba barke Cheikh Amadou Bamba 40 kilomètres carré ci njàmbaar waxuma la nag psychologiquement laa wax la waxuma njàmbaaru bëtin nga gor koo xam ku ko def koo xam ku taxawal lu mel noonu Cheikh Ibrahima taxawal 40 kilomètres carré la borom daal gor dama ne sëñ Touba ko daan yóbbu ku ñuy wax sërif euh, Euh, sëñ ay dara ab sëriñ la sëtu Cheikh Sada bii la moo ma nettali ne Cheikh Sada bii nee na guddik ajjuma ko jot xutbul xaw si dana ndajeeg Mouhamadou Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam réunion guddik ajjuma ko jot nee na waaye xutbul xaw si yëpp ku fa jiitu Cheikh Ahmadou Bamba da nga ko nekk ba mu ñëw daan na tam xutbul xaw si ya mel num sëñ tubaat ci nit ku ñuul te ku ko fa jiitu da ko xaar ba mu ñëw xamoo ne jataay ba fa ñuy nose mbir yee kenn du taxaw kenn du fa wax kenn ay taxaw kenn ay wax muy Cheikh Amadou Bam xatiibu rijaalullah fi xadarat liqa fa lam yakun xaailun sama xaailun bada baynum samsu kawaakibu nuuru nujum bi leen cheikh afili sëñ Tuubaa moom nag mas naa yóbbaale borom dëru ci pays ba ay naari gànnaar ñoo nekk ca gànnaar wax suñu borom na dañoo bëgg a gis Cheikh Amadou Bam mu ne leen dem leen njëreem bi ñu ñëwee njëreem siyaari sëñ Tuubaa mënuñoo yegg ci moom ngir mbooloo mi ñu delluwaat bind ab lettre sëñ na ko nun dañuy wëlli yu néew ci jamono sàkku woon nañ ci suñu borom nag gis la ñëw nañ ba gis la waaye tuxul nga gisanteeg moom nu bëgg laa wax fañ la xamee naar bi ne ko ngir nga xàmmee nu bu ma saa ci pays suñu borom yi da nga nuy romb jàll nga nuy romb jàll naar bi ne ko ngir xàmmee ma nag am na bis ngay jàll am gone gu jàpp sa mbubb di la sant naar bi ne ko man mii nag maa la dogale woon keroog na la sax jàll naqari wuñu waaye xale bi jàll ku doon ne na keroog ñeññite ak fiq mbuubam la Sëñ Tuubaa boole bi ma ko laajee kii kan la daa boole ñeññi ma ak fiq mbuubam na ma kii Cerno Ibra Faty ko bushraaka yaa Cerno Ibrahima bushraaka fuxtal akaabira xiddaman nahu mawlaako Cerno daal gàcce ngalaama jiitu nga ponkal yëpp foo leen jiitoo fa yàlla ne ba ñëw fii doo leen a jiitu fa yàlla la yàlla nomee na yaa jiitu gaa yow Cerno Ibra Faty moo tax si Ibrahima Jol Bachari nee na sëñ Tuba amul coomo ixwaanu xadim musa kulhum kabura nee na sëñ Tuba ay ponkal lam waaye nee na ponkali sëñ Tuba yëpp marché nekk bi léegi ceernooy ngand mi nee na ceernooy ngand mi nee na gars yëpp marché ci ne mi mu ne kon Cheikh Ibrahima melawoo ko suñu borom dajaleel ci ay jëfam ci ay tolluwaayam mooy jëf ju réy jooju maam ci digganteem ak Cheikh Amadou Bamba kon loola taalib bi di ko ca war a jàng bokk na ci ak bëggam Serigne Touba Serigne Touba moo ko leeralal boppam wax ne borom Daarul Muxti dañ koo rendi ci bëgg ma te képp ku ñu te te képp ku ñu rendi ci bëgg ma texee na te du texee di mukk Serigne Touba daa ma sa am ku ñëw fu moom na ko man ne dem naa kër diw waaye dañoo boole nangam ak nangam dem naa kër diw dañoo boole nangam ak nangam Serigne Touba na tekk rek mu ne ko waaye dem naa kër goo xam ne dañoo boole jàng ak liggéey ak jaamu yàlla mu ne ko kër Thierno Ibrahima. jërëjëf Adama. kon kër Thierno Birou Fati la fa war a nekk jàng liggéey jaamu yàlla loolu la borom dëru boole woon liggéey jaamu yàlla melaw taalibe loolu la ci Sëñ Tuubaa jàngale xoolal nag léegi lan lañ ci mën a jànge ci loolu nan ci jëkk jànge doyloo gi ko Sëñ Tuubaa doyloo waaye kim doyloo nu mu wóoree ak nit ñi ni ñu jubadee ni ñu wóoradikoo koo dénk daanaka rek duutoo ci jot léegi koo basale lu la yàqal lan lañ doon na ci maam Cerno ci loolu bokk na ci melo mooy njàmbaar fexe ba am sa yëfi bopp dund Sëñ Tuubaa dund goo xam ne ñëpp a seere ne borom Daaru Muxti dafa dund Sëñ Tuubaa waaye bokk ci melo mooy ñim jamonoon teel ñëpp naw borom Daaru ñim jamonoon teel ñëpp borom xam-xam ya nit yi adduna ya melo yëpp gaa yi yëpp dañoo maase woon naw borom dëru lu ko waral mooy jikko ju sell ji nekk ci moom ak melokaan ndaw ñi amuñu aw lay borom ko Sëñ Tuubaa di batale yoon wi fanweeri at la maam Cerno léegi bari na borom fanweeri at yoo xam ne boo ko dénkee kër boo ñëwee mu tas fanweeri at ñu bàyyee la yoon wi juróom-ñaari at nga ne ko ci géej gi xat dëmut dara yàqu léegi ndaw ñi lan lañ war a jànge borom fanweer lan la war a jànge ci moom waaye borom fanweer yoo xam ne li ngay jàng mooy man saaba la wala kaana la toll naa sama temps am na borom 30 yoo xam ne seen adduna jëpp benn portable lañ ci am amuñu néeg seen dëkk amuñu ko seen kër baay portable amuñu dara dara dara por téléphone rek téléphone boo xam ne danga naan bu ligg si laa yor 300000 wala 200 nangam mille te amoo néeg loo ko jaay. jënd ci ciment amum néeg borom dëru quarante quarante kilomètres la gor yow nga am 30 ba doppi téléphone dong nga am amum néeg lan nga doon kon ci borom dëru waaw léegi ndaw loo xam ne foo ko fekk mi ngi connecté Facebook beeg internet beeg damay wuti ami te meilleur ami amoo ko ma ami yi ngay wut yëpp kuusu bàmmeel la ñuy am meilleur ami mooy sa jëf nga xam ne bari na ndaw ñoo xam ne li ñuy def ci ci ci ci ci internet bi mën nañ koo jàngee nooru daale ni baa ñu nafilee ko téeméer rakk baa ñu jàng ci ñaar fukki isib ci guddi gi waaye non booy damaa connecté sama ami yi sama ami yi te ami yi kat sëñ Tuubaa nee na nit ñeent boppam bokkam alalam jëfam sa bopp boo noppee maanaam sa bopp ñàkk nga ko sa bopp buñ la suulee ñàkk nga leen sa alal buñ la dencee séddoo ko ñàkk nga ko sa jëf doo nga ci des yaa ngi moom ci bàmmeel nga sàggane jëf yooyee nag ba noppi nag ne ci naan nangam loo doon ci cerno wuuf leen ku waasifal say doom wuuf leen lan nga jàng ci loolu waaye nag fexe ba nekk citoyen boo xam ne da ngaa nekk mawaatin boo xam ne danga nekk nekk citoyen actif borom daru lan la joué ci développement ci réew mi ba léegi lim gor ci tool mu ne su ko dëkk ba mu koy gor ay tracteur amut ay machine amut seetar na yu def nangam amut waaye jàmbaaram ak ngoram ak fitam la ko def yow nga nekk ndaw loo xam ne dara mënoo ko taxawal xaala grand bi yu nekk paa bi nangamal ñaata addiyee la sëñ borom daru daan jox sëñ Tuuba la ñaata nga jàng ci loolu borom daru la daan joxee sax di bay di yónnee ba dundum kër sëriñ Tuuba borom daaroo ko yoroon sëñ Tuuba dana lu bàyyi ko ci ceerno rek xalaalan tayiba la mu yor dund ba yow nga nekk ndaw ba noppi waxuma la yor dund sa kër sëriñ mais sa baay day xëy liggéey yi nga tëdd di nelaw doo liggéey bu ñu waxee ne sëñ yàlla sëñ bi damaa seexal ak xéewal sëñ Tuubaa gi mais yow fan la xéewal gi feeñ ci yow xéewal goo xam ne yi nit di am yëpp amoo ci dara kon am na xéewal googu taali bi boo xam ne borom daaru nee nan la lu ne jox na ko am na bis bu mujj li mu mujj mu sëñ mu daaw bàll mii la wax na ko jox naa sëñ Tuubaa addi yi ju ne demal nga rëbbali sëñ borom sëñ Tuubaa borom daaru dugg sëñ Mourou Awa Balla dugg àllub Jolof fii dem rëbbali kere bi mu andee yim rëbb ba nopp sëñ Touba dafa wax sëñ Mourou Awa Balla na ko sa bàyyi ceerno bi fëdde nit ñi dañuy wut adduna muy wut yàlla ba am na nit ñi dañuy wut adduna muy wut yàlla ba am na ko mais ndaw loo xam ne sëñ bi laa yaakaar rek am na ñoo xam ne fu nu abonné kenn xamul ab taalibe day fexe ba xam sëriñam sëriñam xam ko mu xam doomi sëriñam xam soxlay sëriñam xam rakki sëriñam xam léppi sëriñam def léppi sëriñam di sëriñam noonu la taalibe bi di mel da ngay xam léppi sëñ bi xam ñéppi sëñ bi ku sëñ bi di xaritam sax na nga ko fonk ndax sëñ Tuubaa nee na ku sëñ bi bëgg na nga ko bëgg ndax gelmatu sëñ bi ci xam ne bëgg nga ko mën naa yeggale murit ca la muy wut waaye ko doon waaye sëñ bi nga def ko noonu bëgg sëñ bi bañ rakk ji bëgg sëñ bi yab doom ji bëgg sëñ bi xeeb soxna si yow daal kuy sëriñ nga waa kan mooy sa sëriñ Tuubaa daaru doo ko wax doo ne sëñ maam Cernoom sëñ Miqdaadum borom daaru wala nga ne sëñ Moodum sëñ nangam mooy sa sëriñ waaye waa daaru rek mooy luy sa numéro nga ne Tigo wala Orange daa kenn jot la doo wax fi nga bokk màggal si ñëw doo nuyu sëñ bi doo andi yeddee foofu fanaan noo gànna toj na kër sëñ ba biig fuy sa kër sëriñ nga ne kër sëñ maam Cernoom sëñ Miqdaad siyaare woo joxe woo addiyee tegoo mëtaloo cotisation ba noppi yaa reer lu ne yaa koy def daal ba màggal gi nangam nangam te li yëpp nag say morooma ko baas bi say morooma toogaayu sëñ bi say morooma lépp say morooma waaye de yow am murit boo xam ne waxuma la joxe ay sàq ak nangam waaye am na ci ñoo xam ne nee naa seen bit si ci liñ jox seenu ndaw moo ëpp liñ jox sëñ Tuubaa 365 jours 1000 màggalu dëru ba màggalu dëru nga rang sëñ bi jox ko ko xottil sa ndaw jëndal ko gerafaas wutal ko diw yónnee ko appareil di ko so jox nag muy muy connecté te bu waxee nga sëñ bi laa yaakaar rek dama am pësiyëf fan fan la sa pësiyëf dugg am mu murit jëfam a koy tax xam sëñ bi jëfam it mooy présenté wu sëñ gis nga sëñ bi boo bokkoon ak moom benn néeg muy lekk di desal di la jox di la jox mbubbam ngay sol awoo ndigalam jëfe woo ko du la jariñ sëriñ Mbay Jaxate radiyallaahu nee na lu dul ndigal amul njariñ te kat xamal ne ab sëriñ du bëgg nit ba fab njariñ jox ko topp ndigalam boo bëggatee ci sa sëriñ lenn njariñ jox koy njariñ sëriñ ko koy joxe njariñ mu di la jox ay njariñam kon loolu lañ war a jàng ci borom Daaru Muxti nga ne borom Daaru fanweeri at la moom mais borom fanweeri yu bari ay ragal la borom fanweeri at yi bari ñàngal ak dossier rek ay seen mbir waxuma la dem bitim réew mais Dakar dong nit dafay dem ñëw changé dem Dakar gii képp dëkk Kajoor gi baa Bawol jógee Dakar ñëw solo ngaj ne ci dëkk bi nag noo dafa tàng noo réew mi yow tàng yow nga juddoo fii ci àll bi ah Ndakaaru gi dong nga dem dugg ci may gaaka génn di dossier yow kon mun ne la woon yaa nga Edmonton wala yaa nga Washington kon doo toj dëkk bi nga gis màggal gi ñi ci dàq yàngu gën cee mën a waaxu yoruñu dara dara yoruñu parce que euh, dossier moom ku ko man rek amoo dara borom teel bi ku mat borom wërsëg bu mat borom xam-xam bu mat du dossier yu xamti ku moom yokku nam njoolaay waaye yëggu mooy dossier moom daa jëmul fenn kon melawoo mooy nit ki na xam na muy doxee loolu la ñuy roy ndaw yi léegi loolu la ñu war a ab sëriñ du morom sëñ maam Cerno mii taxul ma di ko wax taxul ma di ko wax ab sëriñ du morom. te sëñ Mame Thierno nii mu war a mel bu nu melutoon jataay bii du am li muy doon doon ab sëriñ am na sëriñ sos duñ ko def ndax xalaatuñ ndax boo naan nib teeli bi war a mel faaw nga ne nib sëriñ war a mel te léegi-léegi nga laal foofu boo ne nib sëriñ war a mel sëñ bi ci boppam moo la koy jëge yëgal teeli bi jëkk laa yëgal ne ñoom seen bii melut noonu dañuy muuñ na cell rek waaye xam na ne benn ñu yor melut noonu kon nag boo amee bu ni mel muy sëñ Mame ñoom ñëpp ñu mën ko commencé seeret xam nga tawfeex ji gën a yéeme mooy ab sëriñ bu xam la muy def daa léegi man laa laaj leen benn question borom dóor lu ne jox na ko sëñ Tuubaa léegi gëleemu gàmm ku ko daan jox sëñ tubaa ak ku ko jox sëñ Tuubaa gëleemu gàmm léegi gëleemu gàmm sëñ Saaliwu moo wax sëñ si xaddi mii ne ko borom dëru sëñ Tuubaa daana ko daana jox sëñ Tuubaa gëleemu gàmm kon na nga wut gëleemu gàmm gëleemu gàmm ko sëñ Saaliwu waxoon Cheikh si Cheikh waxoon ko sëñ si xaddi sëñ Cheikh maam Thierno mii ko jox sëñ si xaddi moom mi ma ko jox kon léegi lan la loolu di jàngale kon bu doon tatoone baa muy làmbatu kon du doon ka mu doon waaye ka ko diir te te nag na nga xam ne sëñ Cheikh di woowu ko de na ko nag ma wutali gëléem ga waxu ko ko de da ko wutal gëléem gi ba yëpp ko ba noppi mu door koo wax lii da koo kon xam nga loolu melo la loolu mooy jëf ñu di di xam fa muy teg tànkam ak fa muy kon bu fekkee ne ni ko sëñ bi doon nettali léegi Serigne Cheikh Sidiyel Maxtaar wax na ne Serigne Miqdaat Mbakke dafa yoroon ca cëri mag ña bokk ca mag ña nëbbatu ba yóbbu loola kon boo amee ku ko fi toogal nag di moom da ngay xam ne nga yor lu mu doon waxoon naa ko fi daw nee naa képp ku mu bokkal da borom Daaru Muxti ku ko yëpp amul. amul yoonu murid yi mu bokk ku ko yëpp amul ñi mu bokkal ku ko yëpp amul loola lan lay jàngale mooy kon jëfam. sëñ Gana sëñ Gana giréem ngay wax. Mm-hmm. maag sëriñ bi noo ko jënd ca dëkk mu yaay giléem ñu yor ko giléem yi naar bi nu ko jaayeen ren jii moonu jaayaat ay giléem xam xamee ko sëriñ bi ni ko man yàgg naa la jaay giléem giléem yi yor leen dëkk bu ba indi fii ñu lewatal genn gi fii gàmmoo ko gi ci des mu yónnee ko ba Cheikh Ali gi Baye Cheikh yónnee ko Sëriñ Saaliwu def ko ndawaru gàmmu ba mu delsee ci déwén sa mu ni Baye Cheikh Ali dafaa tal ndawaru mu ne yónnee ci sëñ maam Thierno ni la ma la nga joxe daaw kat sëriñ bi ne naa ko joxewaat te yow yaa ko defal kon yow defaat. defaat gileem googu ba mu koy amaat otoom xaw na cee sax kuule benn. dëgg bi muy laataa dugaat këram ñaar fukki junni la ca defan mhm. bi muy jënd gileem téeméeri junni mhm. bi muy laataa dugaat këram ab taalibi yónnee na ko quatre cent muy motti gileem bi ba Cheikh ko xam nga lu tax Daaru Musti appoo ci xaalis mhm. jëkkoo cee juddu sant Mbakke magoo li tax waaye lii sa warteefa yàlla war a teel la ko warale la ko sëriñ Bamba daa wutloo borom Daaru Musti gileemu gàmmo léegi nag Cheikh di ma ko yow nga joxoon ma ko ma jox ko kon yow yaa ko yelloo. loolu la mooy cer. dama ci xalifa Sëriñ Tuubaa bi xalifa bi xalifa bi dama ci xalifa bi kon. xalifa bi xalifa bi ci boppam. Mhm. laata mu nekk xalifa Sëriñ Tuubaa. Mhm. lay jël fii nag. Mm-hmm. yóbbul ko ko mm-hmm. ba ko ko yóbbuloo te dem su mu ne gis nga kii mm-hmm. li ma la ci moom moo ci maam Thierno Mekhda c'est un exemple de la réussite dëgg la maam Thierno Mekhda c'est un da de développement toutes les taal bi na ngeen xam ni nit bu mu nax boppam kii jëmala ju nga xam ne ku ko yàlla boole moom nga am tuuti compétence am réflexe am mentalité tu vas réussir du Youssouf au lendemain. barkalla alhamdulilah rabbil alamin barkalla alhamdulilah rabbil jërëjëf euh, tubarkalla tubarkalla kon kon noo ngi leen di noo ngi leen di sant bu baax kon na bokk yi ñaan sëñ maam na mi suñu borom yàggal ko fi bu baax a baax euh, jëfam ci kër sëñ Touba jëf yu leer nañ ñi la noonee la mel ci kër Cheikh Sidi Moukhtar noonee la mel ci fu mën a doon muy jëf yoo xam ne jëf yu fés la jëf yu leer a leer la kon yàlla na ko suñu borom gën a yàggal te dolli ko kattan bu baax a baax mag ñu baax ña amoon nañ ci moom yaakaar lool <coughs> tey nag bàyyi nañu ko xel bu baax a baax ci jëfam ak meloom ak tolluwaayam kon noo ngi ñaan yàlla suñu borom lépp lu fi sëriñ Miqdaad bàyyi woon yàlla na ko mottali ba naalaat ay naalam ba yeggale ko ànd ko mbooleen njabootu sëriñ Miqdaad bi yëpp ànd ko taalibe yi ci barke Cheikh Amadou Bamba kon ku yàlla dénk ku mat eh, dangay sant yàlla sa borom noo ngi sant mbokk yi ñu fekk yëpp eh, di ko tàmm jërëjëf Gana Messere Maxtaar ñu ngi lay. lu ñu wax ci moom rek lu wér lu mu la digal moo la ci liggéey dàq laa jaamu yàlla nangoo jëf te lu ca boole wax xam ne yéen ñi seede yëpp mën nañ ne ay taalibeem la ñu ne aslam ay xaritam la noonu danoo wax ni li mu doon seen sëriñ ñun danoo jàpp ni ñun noo leen ci maam Thierno moom. wallaahi ñu dinu teral fu mu jëm dañu yóbbaale. te loolu ci jikkoom la jikkoom lan ànd ak moom waaye du suñ jikko nun ñi kon dañ koy na tey waxam bëriwut lu mu lay digal moo la ci jiitu te doo ko fekk lu ñuy teral waaw sa taxawaay yaa ngi ci ànd ak wér daaw sëñ Moustapha moom sëñ Cheikh Sidil Moukhtar dangaa def waxtaan yu mu ñëw fii sama kanam felam fekk ni ko yow day daanu ma wax gépp gépp mën naa wax ne moom ni nga màggale kenn màggale wu déglu na waxtaan wu lépp rafetlu ko lool daal di koy sant loo ci taxawaay kon Mbàkke dañuy ñaan sa taxawaay yàgg te ànd ko wér yow itam gànn dañ lay sant bu baax lii nga def nun nga ko defal ndax biñ la ko waxee da nga cee daal di ànd ko jàppandal bu baax a baax a baax a baax daaw defoon nga ko yàlla may nu fekk ko ren ji kon noo ngi ñaan nga yàgg ko di ci hadiisul qudsi suñu borom nee na lim bind ci diggante nit ak jinne bu daje woon leelatuñ suuf sa sëñ Moussa Ka nee na guddi seedeel yi jéggal naa ci barkeb bis bi mbooleem jullit ñëpp di kulisa bi topp ma kenn kemari xafar guddi keroog la yàlla naan ridwaan gaawal ubbil wunti yi tey kulisa bi topp ma kenn kenn benn bakkaar jéggale naa lépp damaa di xafar daa ci taalibe yi ñëw toog sëriñ bi toogandoog ñoom lii bu ko sëriñ sëpp defee lu ñu bëgg ci taalibe yi des na ko am la ko waral mooy dëgg-dëgg nag sëriñ ba am na ci responsabilité ndax boo dajale bàyyi sa yitte yëpp te mu xat lool toogandoog taalibe yi looloo tax ba Serigne Ganna loolu mi ko doon seere ci biir waxtaan bi ñu di la sant bu baax di la gërëm sëñ gànna yow it ku mat a njukkal nga